bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Abdou Khadir ñu ngi leen nuyu baax di nuyu waa MKTV bu baax a baax euh, exposition bii nii euh, waa daayira Muqaddamatul Xidma di amal ñu ngi koy amal ci ànd ceeg waa AEM mooy association des écrivains de la Mouridiyya ak waa euh, daayiratu Rawdu Rayaahiin ñoo koy amal fii ci biir jumaa ji mu yàgg am ba euh, ci at ñu koy amalee mu topp ci euh, liggéey yi nga xam ne waa euh, commission culturelle bu daayira Moukhaddamatoul Khidma dañ koy amal ci bu ñu waajal màggal gi exposition bi nag mu jëm rek ci lu jëm ci yoon wi ak lu jëm ci jumaa ji surtout ak ñi àndoon ak sëñ bi ci mag ñi Euh, muy loo xamante ni à chaque fois bu ñu koy def màggal bu jublisee ci le quinze safar dañ koy ubbi muy ren comme nañ ko defee dana tàmbale tey la 15 safar ci la tàmbale comme ni ñu gisee cérémonie d'ouverture bi ci lay tàmbale ba le le 20 mooy bu ñu bu ba ci ginnaaw suba gi incha allah lañ koy tëj waa comité d' organisation bu màggal bi ci njiitee Cheikh euh, Serigne Bassirou Cheikh Abdoul Khadir ñoo ñëw di ko tëj si ànd ceeg waa daayatu Moukhaddamatoul Khidma kon loolu mooy exposition bi loo xamante ni nag daanaka li ko tënk rek. mooy wane jàngaleem sëñ bi ak gën koo tasaare euh, wane itam liggéeyam ak ren muy euh, ñu daja darajaale ko Serigne bu Bousso di borom xam-xam mag boobu euh, ak ngir ni mu ràññee ko woon ci ay liggéeyam fii ci jumaa ji daaw niñ ko darajaale woon Serigne Maam Thierno Birahim Mbacke ren ñu dara jaale ko Sëñ Mbàkke Sëñ Mbàkke kenn ku ne xam na ne ay liggéeyam ci jumaa ji taxaw na leer na lool ndax lettre d'autorisation bi nga xam ne demande d'autorisation bi nga xam ne sëriñ bindoon na ko tubaab bi pour demande ko pour mu may ko mu mu taxawal euh, jumaa ji ca la ba moom moo ko bindoon ci loxoom ci ndigalu sëriñ bi ginnaaw bi tamit bi jumaa ji kiyee moom moo ko jubale penk moom moo moom moo natt xibla bi kon liggéey yu màgg yooyu mu fi def ak yeneen yi di yooyu njabootam di fi jiite ak yeneen ak looloo tax ñu ren waa daayira bi tànn ko ngir mu euh, nekk ganuk maaret bi nga xam ne ci moom lañuy ñuy gën a euh, la ñuy gën a concentré wu gën cee focus wane am njàngaleem wane ay liggéeyam euh, réalisation yi mu def surtout ci wàllum xam-xam ah, ak ñim yar ak ñi nga xam ne moo leen tarbiya bañ àgg fañ war a àgg kon ci loolu lañ ko jagleel moo tax tey gis ngeen cérémonie d'ouverture waa Guédé teew nañ fi ànd ak délégation bu rëy rëy pour rek jëmmal bis bi ak yëkkati fi rafet kon lii mooy li jëm ci maarat bi bu weesoo loolu am na lu jëm ci wàllum jumaa ji lu ciy leeral ci niñ ko sosee ak ba ci lu jëm ci wàllum barabu sëriñ bi lépp rek ñu koy def ci lu jëm ci tam xalifa yi sëriñ bi yi fi teew yi fi yi jaar yëpp si suñu wàllu soit suñu fàllu suñu Abdou Lahad ba wàcc ba ci sëdi ba ci Cheikh Amadou Mountakha lépp rek ak ci doomi sëñ bi ñuy mag yëpp rek si Mor Diarra ak ba ci ba ci magam yeeg rakam si Mor Diarra ak maam Thierno yëpp a ngi ci kon lii mooy li nga xam ne moo constitué euh, exposition bi moo ko tënk ci ay documents yoo xam ne yëpp a fi di ay archives yu am am solo yoo xamante ni dañ ko tànn segg ko euh, gëstu ko. doog koy indi lépp nag ñu koy def ci làkk yu wuute moo di ko def ci arabe di ko def français di ko def ci wolof am na sax tuuti anglais kon euh, lii mooy li ko li tënk rek exposition bi di loo xam ne dafa bokk ci liggéey yi nga xam ne euh, waa daara duñ koy def te mu jëm ci waajal màggal gi ci xam-xam waaw te ndax sëñ Tuubaa jëm lépp mu xam ne kenn si kitaab wala xadis wala adab laa jamaa fiddatin wala jamaa zahab asalaamaaleykum wa rahmatulah ah waaw thème bi mooy euh, rek mooy mooy si si mbàkk bi so lañ ko lañ ko jagleel rek kon daanaka ëpp ci moom ci moom lañ ko lañ ko lañ ko concentré wu euh, dana jël nañ tam nag lu jëm ci jumaa ji daal ci yaatal yaatal xutbatu wam sachin tam moom ci dëgg-dëgg mooy tam bi daal waaye suñ mbàkki buso lañ lañ jagleel lañ jagleel euh, kii mooy ci moom lañ gën a concentré waaye nag thème bi ci dëgg-dëgg nag mooy xutbatu wam sachin mooy xutba gi nga xam ne moom euh, moom moom la euh, moom mooy wane rek euh, sëñ bi bi fi jugee ak ak la ci aju ren ñi ngi ci atum mille mille quatre cent quarante six tolloog téeméeri at ginnaaw bi fi sëriñ bi jugee moo tax ñu tànn xutba googu di ko diraas di ko jàngat ginnaaw bi waa daayira bi defoon nañ ci waxtaan wu am solo bu mag o xam sëñ Fallou Bousso moo ko doon defal waa daayira bi demoon ci ñu jàngat xutba gi di recevoir ko génn ci ay leçons yu ñu ci mën a tiré léegi nag eh, li jëm ci maarit bi tam kon bind nañ ci lu yaatu ab analyse bu yaatu boo xam ci lool rek la jëm ku ñëw ci maarit du nga ko fekk mooy temu temu maarit bi ren incha allah asalaamaaleykum salaatu lasi fi kulli lisanin wa fi safar